jongante alxuraanul karim bi ñu doon amal ci àddina bi yëpp dañ ko doon amalee ci réewum Dubaay sénégalais bi nga xam ne moom moo jël deuxième di El Hadji Cheikh Dia dëkk ci dëkk bu sell bi di Touba ak yeneen ñi nga xam ne ñoo jël raw gàddu gi ci concours national bi nga xam ne ko moom la doon amal mu jëm ci jongante alxuraanul karim te Moustapha Touré jiitu ci topp ci Ibrahima Khalil Lo ak Moustapha Dieng ak Serigne Modou Mbacké ñoom ñëpp dëkk ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba jàngee fi alxuraanul karim ñoom ñëpp ànd ak seeni encadreur seeni waajur ñu gàttandu leen fii ci Touba Mbacke Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou di xalif général des Mourides dalal leen waaye am mbégte lool ci performance yi nga xam ne réewum Sénégal def na ko ci jongante alxuraanul karim ci àddina bi waaye ci taxawaayu daara yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci Touba Mbacke ci liggéey bu bi nga xam ne def nañ ko ba jongante yi nga xam ne am na ci biir réew mi dëkk bu sell bi di Touba ci bu baax a baax Serigne Mountakha Mbacke moom Serigne Bassirou dalal leen fii ci résidence Khadim Rasoul ci altine ji dëppoog le 18 avril 2022 ci teewaayu kilifa yu toog yokk lool ñu amal fi jotaay bu yaatu boo xam ne yëkkati nañ fa alxuraanul karim amal fay taalif waaye am kàddu yu am solo yoo xam ne yëkkati nañ ko fi bismillahi rahmaani rahim ma jóg béral cant gu siiw ndam yi nu xam du ndam lu néew nan àndandoog sun magi réew sargal si doomi daara yi jam nañu njog la ñëpp diir am nañu way wu dootu réer alhamdulilahi alqadir ndam ñëw na doomi daara yi yàlla nu sédde alxuraan nun lañu may naasi balaan nan maase kañ xalel yi daan daanaa ni doomi daara yi jël nañu ndam la wan Dubaay ak Abidjan Ndakaaru Njaay na ñëpp jóg nu maase waay sargal jaloore daara yi te alxuraan ji ay ndamam deful lu tuuti ci ñoñam ñëpp ko diir te noo ko jam jaaraama doomi daara yi daara sigil na Sénégal tey jii ci bépp capital waaye réew mi war nañoo fulaal ngir yàlla doomi daara yi jaloore am nañuy ñuy ñaloor jaloore yéen am jaloor wallaahi yéen a sell mboor jaloore yaa ngi ci daara yi ku leen di suuru daa wérul ku leen di dëkk daa wérul àddina yàgg naa cëral kàngam yi jiite daara yi sunuy xale lay dem biti réew sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa seeni géew jël ndam la indi dal di siiw kenn la mabbu daara yi sunuy xale yi dem biti réew lëmbe ko toj fa dal géew jël ndam ya indi daal di siiw kenn mën la mabbu daara yi alaaji seex ja toj dubaay mokkal ga yéem na yooyu gaay gone gu ndaw ci biiri baay jël ndam andil ko daara yi seex fallu ñas albaraka ndam lañ tegoon ci afrika yaa ko ne cas du kii ka andil ko réew meeg daara yi waa c loola ndam seex fallu sànqe moo ko jam mbindam ma yéem na ay kemam taaral na daayi daara yi waa sene kooña bantaree wërngal ba Moustapha Touré moo gàddu ndam la maa ngi ree kuy jiima noonu daara yi kon ndam yi teew ndam ya wéy yeyoo nañoo kañ ak a way te sant ñiy jël seeni may di xëpp doomi daara yi la footballeur ya doon yeyoo la dongo daara yi yeyoo mbaa lu ko moy danañ la yoo ndam-ndam la doomi daara yi ab kub gënul kaamil fi nun jogante ji jogante nañ te jiitu nan na ngeen defaat na ngeen defoon état na geesu daara yi terrain yaay yi jombu leen millions yu rong yi jombu leen pale ba laana jombuleel dalal fa doomi daara yi raaya ngëñal yi ñoo ko jël jaaraama nee leen njoo ko njal bur yàlla moo fasoo añal jàmbaar doomi daara yi yéen jiitu ngeen Malek Niseer Dubaay di leen damoo ba keer yéen a ngi ca njoboxtal ya goor réew yëpp a ñeesun yi seen ndam yi tax na xol yi neex tey daara bég na ñëpp feex may ngeen nu mbég mu déeti jeex mbég maa ngi doomi daara yi Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na jëm fi yow yàlla na sa fan wi law law yaay wéeru waayu daara yi waxaat ko Cheikh Muntaxa yow ndokk yow ndam yëpp xëy na ñëw fi yow yàlla na sa fan wi law a law yaay wéeru waayu daara yi ban la amee ba fii nu tol ndam lun fi yootu dal ko jël sa fan wi yàlla na nañ ko ful ngay jiite dame daara yi faral taxaw Ahmadou Baas te sëlmalaat ci xayru naas te sant Cheikh Bamba mi daas sam xel ci sargal daara yi allahumma salli ala sayyidina muhammad wa nga ah, dégg ko ah, dégg ñëpp xam xam xam li mu li mu laaj ah, li mu laaj li mu laaj rëy na lool rëy na lool mm, mu jàng waaw mm. li mu laaj rëy na lool xam ne ba ñëpp dégg dégg ko wax dëgg nii waaw waaye ba ñëpp xam ko mm, li mu demee nii waaw li nga wax ne ak lu ñu war a ñëpp war xam Eh, laaj na émission laaj na tel laaj na lépp. bañ xamee ko nii. bañ xamee ko moom leer ñëpp. leer boobaa day soññ ñëpp. day soññ ñëpp waaw day soññ ñëpp. incha allah bisimilah moom it moo demoon Dubaï. moo وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاملين حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم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 أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تومر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهنا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqiin sadaqallahu al-aziim alhamdulilah dégg ngeen ko mu ne sëriñ bi dégg na alhamdulilah fi sëriñ bi tegoon alxuraan kenn dégg ko fi alhamdulilah moo tax lii lépp ndawam moo tax lii lépp ndawam te it incha allahu ndam yi kanam rek la jëm incha allahu ndam yi kanam rek la jëm alxuraan ji alxuraan fa tabaarakallah am na yàlla def barke ci ñoom ñii ak njaboot gi ñëpp ba mën leen a gën a xiir ci boppam gën leen a xiir ci diine ci lislaam gën leen a xiir ci Sëriñ Tuubaa yàgg leen lool ñu am fan fan gudd gudd gudd gudd wànd ak wér ak kattan buñ mën a sax dàkk ci liggéey liggéey alquran liggéey ci liggéey ci alquran liggéeyal ci sëriñ bi ndax eh, sëriñ bi fa mu teg alquran kenn teg ko fa waaw fam fam ko àggale kenn xam ko kenn àggale ko kon nag alhamdulilahi rabbil alamin noo santaat suñu borom ñu booleeg sëriñ di gën sant sëriñ bi. ci ci ci ci moo nga xam ne mooy suñu lépp tey ak ëllëg. rawatina ci nag ci ndam yu yees yii peq. nu am. te tey lépp pàgguteefam. lépp pàgguteefam mu juba boromam la. kon loolu ndam luy tàmbali rek la waaye incha allah kanam rek la jëm kon jërë ngeen jëf noo ngi sant waajur yi seeni i waajur ñoo ngi sant ñi leen doon taxaw di leen jàngal ñoo ngi leen sant ñoom ñii itam ndax li diggante bii ñu am li ñu am lu ne xaj na lu ñu xajoon na ci sabab bu ne xajoon na ci waaw kon kon kon loolu li yéen suñu boom toog toog yéen suñu boom defal la waaye nag am nañ ci cër yàlla jox na leen ci cër waaw ndax ndax ndax nañu nañu nañu nañu nañu nañu nañu jóge woon jubalu ko ni taxaw ko ni suñu bopp def ci seen bopp def yitte ju tol na jigéen ji ñu tef ba ci ndam lii ñu am loolu am nañ ci yàlla may jox nañ leen ci kon man moom kon man dañoo sant yàlla bu baax a baax. sant leen sëriñ Tuubaa bu baax a baax. sant seen i waajur sant ñi doon jàngal. sant leen gërëm leen ñoom ci bop bopp. noo ngi sant sëñ Ahmadou Bass itam ci euh, euh, tënk gii mu tënk. ndam lu rëy lii nu am. Euh, de ñaan itam nañ nañ nañ ko ubbil. jotlikaay yi mm-hmm. yëglikaay yi mm-hmm. yeetekaay yi mm-hmm. ubbil ko bunt te may may ko ci may ko ci ndigal ah, ba mën a ba mën a mam ñu ba xës ah, eh, ko gën a dégg gën a xam fu mu jëm gën a xam lu mu doon waaw ah, gën gën ndax ñëpp gën a mën a sant waaw ci ci ci ci ndam li rëy di ñu am ndam li hmm. waaw ndam li tubaarkalla seen tubaay itam hmm. moom alhamdulilah rabbil alamin hmm. tawfiq Sénégal ndax réew yi bari na lool uh-huh. te fii la feeñ uh-huh. kon nag Sénégal gépp ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo bokk ndam li uh-huh. waaw te it ñoom Sénégal gépp ñoo war a sant sant sëñ sunu borom bu baax seen seen seen sëñ Tuuba seen seen Ahmad Bamba ni mu leen ni mu leen sédde réew yi bari na lool waaye fii la fii la fii la waaw te te te te daañ dem ba xam ne seen seen Ahmad Bamba euh, <laughs> li ma li ma ci xam ak li ma ci gëm. mën ma ko wax yiwu ma xam ak li gëm mënu ma du ma du ma ko wax ci sama làmmiñ sëñ